daayira yëpp di ziare ku ci nekk fu mu nekk ci àdduna bi di ñaan xaj bi ngeen gis nii muy Gana Messere vidéo bii mu dugal noonu bëgg naa tey ku ci nekk ci daayira bi na jàng yaa mun munta ximu mille fois yaa munta ximu ku ci am sant rek nga na yàlla allahumma dammir wa axlik Gana Messere ajilan ñaan googu nekk suuf nga jàng ko allahumma axlik wa dammir Gana Messere nga jàng ko soo defee sant rek nga jàng ko soo paree nga tëjee ko trois cent teg ci trois cent treize su ma rattat naaw asfala saafilina su ma tat naaw asfala leen trois cent treize su ngeen paree ngeen tëjee ko tabaje daa cent fois waaw tabaje daa bi nag ku ko mën nga ut xorom sans xorom boo jël rek nga jàng benn tabaje daa teg ko bu cent yi tegee paree nga jël ko teg ko ci taal teg ko muy bax ba ngeer fee boo defee benn rek benn tabaje daa boo jàng la allahuma dëmmir waaxalik da gànna mesere yàlla yàlla nga damm yàlla nga toroxaal yàlla nga rey gànna mesere ku ci ne def ko tey ndigal boobu laa jox képp ku ko def rek war nga Cheikh Tidiane salaamaaleykum wa rahmatullah Canada ak États-Unis yëpp a fi yem ñu nekk fu ngeen nekk ngeen yéen ñëpp ngeen ko def ku ko defu rek yàlla nga